jël nuyoo bi teg ko ci loxo bàyyi Serigne Assane Seck moo ci njaboot gi soxna si nag di kenn ci doomu Thiénaba soxna si dañ lay bàyyi nga présenté wu wax ñu yow yaay kan ak fan nga dëkk ci Thiénaba. waaw man euh, Absatou Seck laa tudd euh, di doomu Gora Seck ak euh, Yacine Seck di aussi jabaru Khalifa Seck Ibrahima mu bàyyi Youssou Seck. Mm-hmm. maa ngi dëkk Médina. Mm-hmm. est-ce que mas nga ñëw Màkka. déedéet a ñëw soxna si bi la joxe billet Màkka nga ne ci stress waa dem est-ce que dina amam déet waa man kañ laay dem est dem gi wóor na nga jékki-jékki ñu ne lancé nañ embarquement bi kon jàll nga aéroport avion bi décollé ñëw wàcc Madina keroog bi nga doxee ba njëkk ñëw ci barabu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo yëg. lu kenn wax loo xamante moom daal ci xol rek lañ koy yëg loolu laa yëg waaw di ci sant yàlla nag bu baax a baax a baax di sant yàlla parce que xéewalu yàlla moom lii xéewalu yàlla la ku ko yàlla xéewale rek sant rek nga war a dañuy sant bu wér a wér a wér a wér suñu borom di sant sangam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla yàlla bu mu ump jaam yàlla bu mu ump benn jullit loolu ñaanal ñëpp wax dëgg yàlla yëg bi moom kenn mënu ko expliqué. soxna si tey muy Arafa tombe bi nga soog a ñëw Màkka tombe Arafa di ajuma looy ñaanal waa Thiénaba mais looy ñaanal waa Sénégal. jàmm jàmm ak sutura lay ñaanal Sénégal ak Thiénaba ndax jàmm mooy base bi ci la lépp xaj jàmm ak sutura yàlla nañ ko yàlla defal. amiin maa ngi koy ñaanal jullit yëpp jullitu àdduna yëpp rawatina waa Sénégal rawatina waa Thiénaba. jërëjëf kon yàlla na yàlla defal ñu aj gu nangu yoon wi yàlla bu nekk sa yoonu mujj mbokk yi lii kat euh, euh, seen mbokk Mamour Mbaye sëriñ El Hadj Talla Gueye Seck ñoo doon euh, interroger sunu baax mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokki Thiénaba TV seen mbokk Mamour Mbaye nga may waxaat asalaamaaleykum wa di jël nuyoo bi te ko ci loxo bàyyi sëriñ asan Seck mi nga xam ne mooy xalifa général Thiénaba ak li ci aju mu wàcce ko ci euh, kilifa yëpp ak njaboot gi. Euh, kii ñu taxawal nii dafa nekk dafa am ak relation Thiénaba direct ndax moom nijaayam ku Thiénaba yëpp xam la muy euh, El Hadj Mandiaye Kébé di meeru Fass Kofi xam ni moom El Hadj Mandiaye Kébé moomu. ak yaayu soxna si ñoo bokk ndey ak bàyyi kon soxna si dañ koy bàyyi rek mu présenté wu macha allah lu la tudd ak fi mu nekk lan la fi def soxna si nga nuy wàcc na ba wax yow noo tudd ak fi nga nekk loo fi def. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki Thiénaba samay mbokk lañu ndax man daanaka fa laa cosaanoo Mandiaye Kébé moomu mu tudd Alaaji Mandiaye Kébé moomu ak sama yaay soxna Ngóone Kébé ñoo bokk ndey ak baay Alaaji Modou mi nga xam ne moom moo représenté woon Thiénaba ci Fass Kofé moom mooy seen papa di sama maam man fii nag maa ngi nii ci Mina tey la ñu ñëw Mina ci Màkka euh, fas yéene mottali suñu ak Màkka incha allah ñun nag dañu am agence de voyage agence de voyage bi mi ngi tudd Jàbba voyage ñu ànd ak regroupement Capio ñëw fii pour mën a mottali suñu cinquième pilier de l'islam man nag Thiénaba ba laa bokk ndax bi ma gisee samay mbokk rek dama ñëw songo leen ne leen man kat waa Thiénaba laa man maa ngi tudd Adja Aïssatou Kébé. jërëjëf jërëjëf Adja Aïssatou Kébé macha allah ci kàddu yu rafet yooyu xam ne Thiénaba TV li rek lay taamu mooy xool euh, Thiénaba ak njabootam macha allah euh, euh, fi nga nekk muy groupement bi di Capio kon léegi ñoom xam nañ fi jàpp voyage macha allah yow nga yor ko waaye xam nañ fi aussi Nasrullah Adja Fari Diop ñu ma indi fi yorko ñu xam fi aussi AIVLT bokk ci Capio. El Hadj Ndiaye si ñu ngi yor ko kon njabootu Thiénaba ñoom ñoo tasante ci benn groupement. waa léegi bu ma la woon. limal ma ñetti nit ba ñeent ba juróom yoo nuyu Thiénaba kan kan ngay nuyu bala ñoo yëkkati jotaay bi. ah nuyu naa nag sama sama nijaay sama papa di ah Cheikhou Amadou Seck Cheikh Amadou Seck maa ngi koy nuyu lu bare bari bari bari bari. tukkeem bu mujj bi sax bu mu doon def avant muy nekk xalif man mi maa ko tagal billet ah ci sama agence laa ko tagalee billet mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc bësal abonné bësal cloche bi ngir lépp nga mën koy am